damaayu rafin baarisa damir rafan yu feeñ yi almuttasila yu jokk bi afaali ci fenl yi lii defe na jàngoo nañ ko ci gisu saani bi damir rafan yi jokk ci maadi mooy taa ak naa alif lis na ne waaw jamaa nuunu niswa yooyu yëg dañuy feeñ fen yi la doon damir rafan yu jokk ci mu daarewo mooy yaaw na ne waaw jamaa nuunu noonu dañuy jokk ci amru tamit yooyu ñooy demee rafan yu feeñ yi moom lay jàngale wala am siri li mooy misaale fayam tu dégg naa duru sama dars koog taala taa mooy tu ti tuma tuma tum tunna fayim ti ba mu jeex fayim naa dégg nañ duru si naa suñu dars koog yi la bokk dégg nga <coughs> sama dars kooku alif isnayn la mooy faayil ba mm, comme niñ ko yàggee arabe rek talaamis élèves yu góor yi fahimu dégg nañ duruusum seen dars kooku waawu jamaa la moo di faayil bi tilmisaat élèves yu jigéen yi fahim na dégg nañ duruusum na seen dars kooku noonu niswa la mooy faayil bi kon fin maat yi moom demi bu feeñ bu ci jokkoo benn muy taa wala naa wala wala élèves wala waaw guy tekki mbooloo wala nuun guy tekki mbooloo mu jigéen waaw gi tekk mbooloo mu góor la laa wax juróom yooyu ñooy damiru yi nga xam ne faayil lañu doon dañuy feeñ di jokk ci fi'lu maadi amaa yi jokk ci fi'lu mudaara wala fi'lu amr <coughs> moom ñeent la ci jàngale yaawul mu xaataba alifu isnayni waaw jamaa nuun niswa moom la toppalante nii anti yow tafamina da nga dégg duruus ak sa dars kooku tafamina fi'lu mudaara marfuun bi subuuti nuun wal yaa damiirun muttasilun mabniyun alaa sukuun fi mahalli raf'i faa'il gis nga yaa googu jokk na ca mooy faa'il bi alwaladaani ñaari xale yi yafhamaani dañ dégg ñoom ñaar duruusahumaa seen dars alif googu mooy faa'il bi alif isnayni antum yéen tafhamuuna da ngeen dégg duruusakum seen dars waaw ga mooy faa'il bi albanaatu doomi jigéen ñi yafhamna dañ dégg duruusahunna seen dars nuun ga mooy faa'il kon fenn mu daara ñeent damir yi ñoo ci jokk yaaw mu xaatiba alif gis ne ni waaw jamaa nun nis fa foo ko gis nag mu jokk ci fenn mu daara bu am sikk mooy faayil ba bu am mooy faayil ba parce que damir bu nekk faayil bokkut ak lu jokk ci baat te du damir damir bu nekk faayil dafay remplace jëmm damir mooy luy remplace jëmm fahimtu dégg naa kuy dégg man tu googu jëmm la remplace moo tax moom mooy faayil tafahami ne da dégg yaa googu jigéen ji nga jàkkaaroon la moo tax moom mooy faayil boo ne fahimat dégg na nag taa googu remplace wul benn jëm moo tax du faayil dégg nga ban na da nga bind noonu taw kii benn jëm dafa ñëw pour dëgëral jëf ji waaye ñëwut pour wane ne diw moo jëf moo jokk ci faalu te remplace wuñ jëm tekkuñ jëm duñ faayil yee cee remplace jëm na ñun ñooy nekk faayil ifaam yi déggal duru kii sa darsu bi ifaamaa dégg na yéen ñaar duruusakumaa seen darsu mi ifaamu dégg na yéen mbooloo mu góor mi duruusakum seen darsu ifham na dégg na yéen jigéen ñi duruusakuna seen darsu demi day jokk ci mudaara mooy jokk ci amru yaaw mu xaataba alif isnayni waaw jamaa noonu ni boo xoolee ñoom ñooy faayal man ngeen ko inrab albaax su ni mooy gëstu bi ama ka nekk na sa kanam salaasu raqsa min ñetti xaaj min am tëdd si misaal yi alqismul xaaj bu njëkk bi yastamilu dana làmboo ala afaalin maadiyatin ci fi'lu maadi wasaani bu ñaareel bi ala afaalin mudaaratin ci bu ñetteel bi ala afaali amriyatin ci fi'lu amru wayezi wayezi wanari nuridu danañ bëgg fi hada dars ci bile dars an nuxdira ñu teewal lakka ñeel la damaay rafi damay rafaat baarisa yu feeñi al mutasal yu jokk bi rafaali ci fi'lu yi bi an waaye ànd ak xeet asalaasa yëre yi ñett maanaam ya jokk si maadi mu daarum amru damir yooyu lañ bëgg jàng fay daam na zarta boo xoolee fi lam tel te qismu awali ci misaal xaaj bu njëkk bi rayit da nga gis ana damaay rafa ya yu rafa ëllëti yi nga xam ne te tasir dana jokk bi afaani maadi ci fenu maadiya benn si juróom yi rek la mën a doon yé moom attaa mooy taa mën naa nekk tati tuma tuma tum tum na wa takun dana nekk lil mutakallim ñeel koy wax wal mu xaatab ki nga jàkkaarloog muy góor wal muxaataba ki nga jàkkaarloo muy jigéen mooy katabtu mooy mutakalim wala katab naa hmm, naa gi sax bokku ci hmm, katabtu ta mooy kenn ku góor gi katabti kenn ku jigéen gi wal mu xaati bay nag ñaar góor ñi nga jàkkaarloo katabtuma wal mu xaati hmm, xaata ba tey ni tamit ak ñaar jigéen ñi nga jàkkaarloo mooy katabtuma ba tey mu xaata bi nag mbooloo mu góor mi nga jàkkaarloo katabtum wal mu xaata baat ak mbooloo mu jigéen mi nga jàkkaarloo katabtum na hmm? war naa ak naa comme katab na waalif isnay comme kataba katabata gis nga taagoogu nag dafa ñëw pour war ne fenn bi jigéen la rek waaye alif gi mooy tekk ne ñaar ñii ñoo def moo tax alif gi mooy mu jigéen comme katab na juróomi demir yi ñooy jokk ci feenu maad yi te foo leen fekk la doon moo tax ñu tudd leen yu feeñ dafa mel ni jàngoon nañ lu mel nii ci gisu saani ba wala taamalta boo seetlu am teel rek xis mel ni misaalu ñaari xaaj yi asaani bu ñaareel bi mooy xaaj ñaareel ba saalis ak bu ñetteel ba raay si dana gis na damay rafet na damay rafet ëllëg yi nga xam ne te tëjul dana jokk bi mu daara ci mu daara wala amru ak amru yooyu ñoom mooy yaawu mu xaataba alif is ne ni waawu jamaa noonu ni so yaawu mu xaataba alif is ne ni waawu jamaa noonu ni so ñeenti damir yi ñoo jokk ci mudaari ñoo jokk ci amru comme ni nga ko gisee alxawaay li mooy tënk bi <coughs> dama rafi baarisa damir rafa yu feeñ allati yi nga xam ne te taswis danañ jokk bil maadi ci maadi yi ñoom atta mooy ta wan naa ak naa waa aliful isnayni ak alif guy tekk ñaar waawul jamaa waaw guy tekk mbooloo wa mu jigéen dama rafi al baarisa damir rafa yi nga xam ne te taswis dana jokk bil ci mudaari wal amru ak amru hiya moom mooy yaaw muxaataba ak alifis nee ni waaw jamaa ak noonu nisba kon yi jàpp ko foo leen fekk xamal ne ñooy faay tamrin li jëman turam bayin leerlal damay rafe demee rafaal mu tase yu jóg bi afaali ci fin bi alati yi xam ne fi na baraate aate ñu ngi ci fii dëkk day jox teg si nga génn damay rafa yu jokk yi tax ñu tudd leen rafa mooy ñoom faay lañu doon te toujours dañ jokk benn ci maa di mu am su maskur nga tudd maa baqee la des minaa ci ñoom xarajat wala xarajtu la génn naa maa taayifatin ànd ak ab kuréel minal asdiqaayi ci xarit yi di ziyaarati daari asaari ngir siyaari kër ak jeexit yi al arabiya yi ko ju arab kër ak jeexit mooy kër yi nga xam ne ni fa lañu fekk la fa arab yi bàyyi la fa maam yi bàyyi daal fa machay naa ñu dox ilayha jëm si moom waxat taxallafa te des na gannaaw isnaani ñaar min naa si ñun araada bëgg na ñoom ñaar an yazura ñu ziyaare maadan axara beneen école maad mooy miin waay rek fa nga miinoon dem rek fa qaabala naa mu jàkkaarloog ñun rijaalu daari góori kër ga góor yi nga xam ne ñoon dëkkee ci kër googu nga xam ne fa fa lañ def jeexiti maam yi maanaam la fa maam yi bàyyi wa sharaxu leeral lanaa ñeel kasiran lu bari min al asaari ci ay jeexit alajiba yu yéeme wara ay naa ñu gis annaasa nit ñi yeta amaluuna ña ngay settantal sinaata ajdaadihim liggéeyu seeni maam wa dafa mel ni li am baam tunaadihim mu ngi leen di xoo wala boobu ka dafa mel ni moomu maanaam liggéey boobu tunaadihim mu ngi leen di xoo naa leen an amalu na liggéey kama amilu comme nu seen maam yi liggéeyee tasilu kon da ngeen yegg ila ma wasalu jëm fañ yegg bu fa maam yi yegg mhm. daa tegal kulla fexlin bépp fexlu minal afaani atiya ci fexl yi dëkk fii jumlatin si jumla mustaran bu ñu wéet ila kulli ma yattasilu ci lépp loo xam ne dana jokk bii ci moom mina damay rafi ci demee rafa al baarisa yu feeñ jamaa dajale na mbooleem damir boo xam ne dana jokk ci fi'il maadi jokk ko ci dugal ko ci jumla yoxsinu dana rafetal mboolem damir bi jokk ci mudaara jokk ko ci asduqu danaa dëggal wala usduq dëggalal mboolem damir buy jokk ci fi'il amru jokk ko ca asnil wéetal al fi'il al awwal fi'il bu njëkk bi maa baqaay ànd ak desam fi na baaraati aatiya ci firiidik ila kulin damaay rafi ci mboolem damir rafa alati yi nga xam ne tasiru dana mën a jokk bii ci moom maa muraati maa qad yaxdusu ànd ak sàmmanteeg la dana xew mais taxiiri soppeeku fi fi'li saani mm, ci fi'l bu ñaareel bi maanaam fi'l bu njëkk bi moom ngay booleeg mboolem demir yi ci mën a jóg fi'l bu njëkk bi nag maadi la xam nga fi'l mu njëkk bu soppeeku rek fi'l bu ñaareel bi foo mu soppeeku kon fi'l bu ñaareel bi saa yi war a soppeeku soppeeku na soppeeku saafara tukki na li yaqtabisa ngir mu jumu. jumu mooy nga jël safara di ci leerlu jël safara taal taal li nga yore ba pare di ci leerlu di dem loolu mooy iqtibaas xam nga ñoom dañ laan jël ay bant fekk safara su tàkk ñu taal seen bant boobu di ñiitee seen bant boobu loolu mooy iqtibaas jumu nga jël leer ci keneen fii nag xam-xam li def ko def majaas nii rek istihaara rek àbb la waaye dëgg-dëgg xam-xam bi nekkul safara suñuy leer leeralee waaye nag ni lay xam-xam di wane yoon moo tax mu nirale ko safara léegi ni nga jëlee safara mu ne leer la moo nga jëlee ci xam-xam mu ne leer moo saafara tukki na leex tabisa ngir mu jumu nga ngir mu jël leen ma xam-xam hmm, wa tajaaruba ak expérience mooy nattu tajaarub mooy nga expérience ci def ko saafara jokk ci mboolem damir yi te boo jokkee demi rek ko mën a saafartu doo mën a wax li aqtabisa li aqtabisa ngay wax saafara nga ne li aqtabisa noonu nga koy defee woon jeex daan tegal fi'lan maadiyan fi'lan maadiyan muttasilin bu jokk bi demee rafin ci demee rafan fi kulli makaanin xaalin ci bépp barab yu wéet su ma kur nga tudd maa baqee la des man damay rafi ci demee rafan al yu feeñi allati yi nga xamante tasul dana jokk bil maadiye ci maadiye diggante yi fi'lu maadi nga ci jokk fi'lu maadi bi na am damir rafa hmm? maanaam mboolem damir rafa yu jokk ci fi'lu maadi na nga ko andi dugal ko ci diggante yi albanaatu doomi jigéen ñi addarajaatu velo yi anti yow jigéen ñi alawaan yi ndab yi mooy bool yi antum yéen góor ñi al ahraama tabax ya ah, mooy tabax yi buur yéen leen tabax ci jamono yu njëkk ya ana man asnaani samay bëñ الحجاج أتكدي مكة مكة نحن نن في النهر في الدخبي أنت يوال الفقراء كوينيكي أنتما ينيار على السارق تساتبي دول فعل ماضي دانت قال فعل مدار فعل مدار متصل بأجيوك بدمي رفين تدمي رفان في كل مكان تبي فورال قارن بويت سمذكور ما تدو ما بقي الاسم من رفين بارزة تدمي رفان يفين allati yi nga xamante ne si dana jokk bi mu daaroo ci mu daaroo fenn mu daaroo ngay dugal fii boole koog damay yi ci mën a jokkee mu ñeenti damir dugal ko si diggante bi. a tilmisataani ñaari alif alxalwa xalwa des koy firee tàngal waaye dañ koy firee bañ it mooy yu neex yi saf suukar rek bonbon yeeg bañ yeeg yooyu yëpp saf suukar xalwa la. anti yow ummu ki sa yaay antuma yéen ñaar ñu góor ñi ilal askandariya alfallaaxuna baykat yi li ziyaarati niili ngir ziyaara dex bi alkalbaani ñaari xaji al kër gi antum yéen watanukum seen réew xawil changel al jumal al jumla fi'liya yi dik ilaa jumal ismiya def ko jumla ismiya su maskur nga tudd maa baqee la des min damaa rafin baarisa si demee rafan yu feeñ yi allati yi nga xam ne tëttasul danañ jokk bil maadi yi ci yii ay jumla fi'liya danga koy def jumlaay ismiya dégg nga xëy hmm. na dafa bëgg yim andiwut ci ci dama dama yim jokkut nga jokk ba fay def ko jumlaay ismiya xëy na kasura bëri na sunnaaw liggéeykat yi fii misra saatu dimbal na alxarawiyaatu ña dëkkee ci àll ba azwaajuhun na seen jëkkër yi xasama séddal na sharikaani ñaari way bokkaate yér bi huma seen bénéfice andiwu taa andiwu ko su nga ne asunnaaw fii misra kasiirun dégg نون غو ديف بام جيخ ديف لن مبتلى قبر غي اندي يت يينن يو خامني دامي تادا جي جوك اك نا اك واو اك نون نيسو اك يا اك تي ياك نا يور دي الف اسنين dan tegal sil jokal alif isnen bi kul nawin ci bepp xet ta tasil dana jok bi ci mi afal ci xali fi alif isnaani fu mu mën a jokk moo xam maadi mudaari amru maam andil maadi yokk ci naa naa bi kulli nawin ci bépp xeet te tasul dana jokk bi ci moom mi ne bi fii jumla mu am njëriñ naa fa a jokk dugal ko fu naa yaakaar naa benn la mën a jokk moom sil waaw jamaa bi kulli nawin ci bépp xeet te tasul dana jokk bi ci ci fan fii jumla mu fii la jumla waaw jamaa fu mu mën a jokk jokk ko fa dugal ko si jumla bu am njëriñ sil jokkal ataa ataa bi kullin nawin ci bépp xeet te tasul dana jokk bii ci moom min afaal ci fan yi fi jumla mufida am njëriñ waaw jamaa wala boog taa mu taxarika fu mu mën a jokk-jokk ko fa dugal ko si jumla bu am kon si maat yi da nga koy jokk sil jokkal nuunu niswa nuunu niswa ci bépp xeet te tasul dana jokk bii ci moom ci fan yi fi jumla mufida jumla yi am njëriñ noonu niswa fu mu mën a jokk-jokk ko fa duur gu si jumla bu am njëriñ kon dana jokk ci ñett yëpp su ko defee loolu moo di darsu boobu ñu jël isnaadu fi'lu saxi wal mu'tal ila damaayir al baariza dégg nga wet gi ñu wet fi'lu saxiix ak fi'lu mu'tal ci damir yu feeñ yi Eh, ndax dana am changement am déet mu njëkkee yi nga xam ne du am changement mooy fi'l saalim jàngoon nañ ak mahmuz mu daaf moom day am changement tuuti moo tax mu bàyyi ak misaal kon jël na ñaari fi'l yu wér mahmuz ak salim mu jël benn fi'l bu ràgg mooy misaal yooyu boo leen boolee boo leen wéetee ci benn changement du ci wax ji dafay leer moo tax isnaadu salim wéet gi ñuy wéet salim والمهموز المهموز والمثال والمثال أكثر المثال إلى الدماء سدمير ألم تريد المثال سمع سمعت دقنا أم سامة كوك سالم لا أنا سمعت نحن سمعنا أنت سمعت أنت سمعت أنتما سمعتما أنتما سمعتما أنتم سمعتم أنتم سمعتم هو سمع هي سمعت هما سمعا هما سمعتا هم سمعون سمعنا بقاوة قبال نياك نجان لو ننكو تصرفوا با تتخوان ننكو موتخ موتخ نيقاوالكو ألم ترد لي مثالي سمعت دقنا النداء واتبي سمعنا دقنا النداء واتبي أتفلان ياري قلي سمع دقنا النداء واتبي الأطفال خلي سمعوا دقنا النداء واتبي البنات خلي جيجني سمعنا دقنا النداء واتبي فو بين سان معهم في بلي نعاجل محموس مؤمن أمرا أنا أمرت نحن أمرنا أنت أمرت أنت أمرت أنتما أمرتما أنتما أمرتما أنتم أمرتم أنتم أمرتم, أنتم أمرتم. هو أمر هي أمرتهما أمراهما أمرتاهم أمروهن أمرنا أم بين سانزما مومت أمرت دقلنا بالمعروف كيلو باخ أمرنا دقلنا بالمعروف كيلو باخ الزائرة نياري وزياري سئما يقد من الامتزار قار منام قار نن بتيل الزائر وزياري سائما ويقد من الانتظار قار العاملات liggéeykat yi bada na commencé nañ al'amal liggéey أنما مزفا foofu أقلام نيم ma muzafa seen booleen booleeg damir yi amul benn changement misaal yi noonu ana waatu nahnu waadna anta waatta anti waatti antuma waatuma antuma waatuma antum waattum antunna waattumna huwa waada hiya waadat huma waada huma waadatahum waaduhunna waadna amul benn changement mm, dégg nga waatu digg naa بفعل الخير سي جيف وعدنا دجنن بفعل الخير سي جيف البنتان نيار دومي جيغني وعدتا دجنن بفعل الخير سي جيف لوباخ رغنيا وعدو دجنن بفعل الخير سي جيف الغنيات وي كومالي جيغني وعدنا ديغنن بفعل الخير سي جيف البحث لما يدسبي عرفنا قمنا في درس سابق في درس بجيتن أن دماء رفي البارزة ينمو يدمي رفعي فاني التي نخمن تتسل دنين جوكو بماري كمادي والمدارة المدارة والأمر أمر ونريد دنين بغي أن نعرف أن يقامنا في حال الفعل السالم حال الفعل السالم والمهموس والمثال عند التسالي بوكو جوكو بازي دماري كبير دمير نعدنا أمسان ما كفعل بغي أملو تدقق ولا لو سوبي ولا دو أمسان ما لولن بغي جانج جسنين أمود دون أمسان ما كل فعل بيب فعل في القسم الأول تقاج بنجك بي من الأمثلة التي مثالي سالم سالم لك كم سمع وفي القسم الثاني قد نار بي محمود محمود لكم قرأ سيما بدا وفي الثالث بنية المثال المثال لكم وعدا وقد اتصل جوكنا هذه الأفعال يلفعلوا المادية يقمن الماجير في كل قسم في بيب خاج بجميع دماء الرفين تنبولم دماء الرفاي التي يقمن تتصل دنا جوك بالمادي في مادي مبولم دماء الرفاي يورا جوك في مادي رك جوكنا في ولو أنكم بفكونا يوم داهيت نرولنغا bay na kulli fenn diggante bépp fenn mi naa ci moom xabla itisaal yi njëkk muy jokk bi demir ci demir gi boo baax daa ak gannaaw ga maa bi aada sa na fii moom tax yéen benn soppeeku fenn yi boo leen jëloon bañ jokkee ci demir yi avant ñu ci jokk da ngay gis ne bu jo bu si waaw jokkee da nga koy daam mujj ga loolu amul problème loolu mënu ñàkk jokk wala naa da nga koy sukkoon bu dee nuun nis bi da nga koy sukkoon loolu moom loolu moom mënu see ñàkk waaye bu dul loolu gisoo benn changement ci ci jumla yi dégg nga gisoo benn changement ci jumla hmm? hmm? ki nag dana la jàpp ne an tus ne da nga wéet wax dëgg yow kese mu daaree kulli fenlin mu daaree bépp fenlu fi am tëdd saabiqat ci misaal jiitu bu am rek amoon ilaa damay rafet ci demee rafet yi nga xam ne si dana jokk bii maa ñoom ñaar boo neexee nga jël seen mu daaree jokk ko ci demee moom it noonu la fay saa fanal te boo defee loolu fay nekk naka yow سترى دا غيس بنفسك سبب أن المدار أن المدار والأمر أك أمر أك مادي لسالم نيال سالم والماموس أك ماموس والمثال أك مثال لا يتغيران دون سوبيكو أيضا بتي bilis naari boo ko wéetee ila damaay si damir kon ñetti fenl yi ñooy fenl yi gën a neex a wéet ak damir saalim mahmus misaal alqaida yi mooy tënk bi isa usnida bu ñu wéetee saalim ak mahmus ak misaal ila damaay rafin baarisa si damir rafan yu feeñ yi lam yo dis du sos haada isnaadu bi lay wéet fiyaa ci moom taxiiran benn soppeeku moo xam maari mu daal am yëpp dégg nga daan tegal kullu fenn bépp fenn mel ne afaan aatee ci fenn yi dik fii jumlin mu fidati ci jumli yu am njëriñ mosu na ngi wér ko ilaa kulli damay raf yi ci mboolem damay rafa al baaris yu feeñ yi nga xamante ne tasiw jokk bii ci moom mm, dégg nga koy bu xewee tax yum soppeeku fas kurhu nga tudd ko jëlal fenn yi dugal ko ci jumla bu am njëriñ waaye fenn bu nekk bu dee maadi la dugal ko na ci demee yëpp jokk demee yëpp ci mën a jokk bu dee mu daayru noonu boo amee soppeeku nga wax ko Fata ubbi na yesalu dana laaj xif taxawal hmm, dégg nga waaye nag dafa attention nag misaal moom bu fekkee daf ne hmm, mudaare bi amru bi amul changement jar na xoolaat misaal moom mudaare bi amru am na changement tuuti jàngoo nañ ko fële dégg nga ndax da ngay dagg waaw ko dégg nga waxa ba may na sa dee ak xoomaan na yëjiru dana fekk iqra jàngal yaqtama dana dagg isbir muñal rahima isbir muñal rahima yërëm na en tout cas wax gi wax ne fay nekk sa tara bi nafsika ann al mudaara wal amra li saalim wal mahmuus wal misaal laa yataxayraani moo na ci génn misaal ndax misaal kat ku ne xam na ne boo ko jokkee ci mudaaro dana am changement waaye loolu jàngoo nañ ko ca sarf ba dégg nga kawil changel xam sa jumla juróomi jumla fin yétni yoo xam ne fin jumlaay fin lañ fin la maadin fin bi maadi la misaalum te misaal lay doon musarun bu ñu wet ilaa damir raf yi si damir rafa mas ci fay damay ànd ak matal damir yëpp formel juróomi jumla yoo xam ni fi'lu bi maadi la misaal la waaye maadi la nga dugal ko si damir rafa yi nga fexe damir rafa yi ñëw kawin formel arba jumla ñeenti jumla bi ku li mi laa nekk si benn mu nekk mu daaroo mu daar boo xam ne mahmus la musnadun buñ wéet ilaa damir raf yi si damir rafa mas ci fay damay ànd ak matal damir yëpp formel ñeenti jumla bu nekk am mu daara boo xam ne mahmus la mm, nga wéet ko ci damiru rafa mm, dégg nga maanaam yi ci war a feeñ daal mu daaroo damir ci war a dugal yëpp dugal ko ci kawin formé arbaa jumalin fin yeetin ñeenti jumlaay fin ya fin la fin bi amrun fin amrun la saalim boo xam ne saalim la musnadun ñu wét ko daa damir rafa ci damir rafa maa ngi si fay damaa yi ànd ak matal damir yëpp li may def tey bi nuriidul islaam wastata'tu wa tawfiqi illaa billaah alayhi